nga jële ko fa wàll ko sa moroomam doomu aadama ko wàll ko kaneen àq jooju kenn xamul nu mu toll tey jii boo jugoon tey ci waxin di dem ca jàkka ji di julli ji fekk jàkka ji bi nga fiy dem leer na la naññ ni danga am feebar bi nga wàll ko kenn non doo am jaamu yàlla gi nga doon wut ba noppi da nga am digg sa diggante ak sa borom su ma waxee loolu nag bugguma wax ni dañu war a tëj jàkka tëj jàkka du ma ci mës a d'accord waaye jàkka mën nañ cee julli juma des na fa julli ci fukki ak benn onze personnes histoire indi na ko ci madinatul wara yon saa sallam taxaw na bay xutba saxaaba yi ñu bari génn jumaa ji dem di njëkkante ji njëg bu doon njëgg mooy jamono ji conteneur la fa des fukkinit ak benn ci la toll waaye teewul keroog yonent bi daal julli continuer kon la muy tekk mooy jumaa mën nañ ko julli ci fukki ak benn léegi nag néegub yàlla di ko tëj moom dëgg la tëj néegub yàlla tëjji sa kër loolu moom xel nangu ko waaye nag mën nañu sensibiliser ñay nekk ci néeg ba ba nga xam dañuy nekk ñoo xam da leen di wóor ñu leen ñii mat nañ jumaa te kenn feebaru ci nga xam ne juma juma néeg bi moom du tëj ba faw ñenn ña nag lislaam daal leen di tënk kaay leen toog fii da ngeen am nag yoolub ku dem jumaa lu tax parce que boo demee jumaa da nga fa créer benn feebar boo xam ne àq lay doon kon bàyyil ña feebarut tan saytu leen ñu julli jumaa bu ko defee ñaar danaam am doo wàll kenn te du te jumaa dana loolu lu mat a bàyyi xel la kon nag fii réew mi toll ñëpp la concerné képp koo xam ne dangaa am mbooloo di yëkkate sa kàddu ñu di la diglu yaakaar la boo leen digalee ñu def boo leen teree ñu bàyyi war ngaa fexe ba xiir nit ñi ci civilisation mooy ak set ak déggal docteur yi docteur yi dëkk boo fi dem bu nu demee Touba fekk fa Matlabul ni dem hôpital Ndamaatu fekk fa ab hôpital ba ay taalibe lay faj yu am sëriñ ñu ànd ak ay jàngoro yu docteur yi di dindi docteur yooyu tey ñoo am benn situation bu jafe daal di ni lii bu ko defee mucc ci feebar bi loolu nañ nañ ci dimbali mun Mountakha mi nga xam ni yërmande jaam ñi képp la loolu mooy premier point bi nga xamante ni bii nii doon naa ko leeral. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen si biir réew mi wala si da ngeen di abonné fii si Tawfekh Production a ko ngir mën a xam li nga xam